grippe aviaire ñu ngi koy lam-laamee ca Pout ca région bu Thiès mu melni xibar bu ni mel nak ñi di acteurs yi dégguñu ko. non loolu suul ci ginaar yi ginaar yi moom feebar amu ci mom ay grippe aviaire moom amu ci ginaar yi fii ñun xamuñu ko ci ginaar yi wax dëgg yalla amu ci. mais dëgg gu ma ko moom amoon amona fi dal na fi ah, ah, amul ah, ah dé ak ségul fi dégguñ ko tam grippe aviaire ci ganaar. te marché Castor nak ñi ñi ñep ci wàllum ginaar ci la ñuy yëngu. seen activité ba fi ñu toll nii ñoom gis nañ ne mu ngi dox. pour bari na. en pagaille mais taxul mu yomb na war a yombe nag ndax euh, juróomi téeméer dañ koy jaayee fii poulet de terre yomb na am na. poulet de pays nag moom moo am surprise euh, euh, at bu ñëw mu gën a yéeg ren da cee raw gaar 4000 3500 3000 2500 am na gaar bu yomb lay doon. parce que léeg-léeg dox léeg du dox quoi mais période bi moom ay 1000 laay wàcce ay 500 yooyu ay 800. wax dëgg yàlla. it seegul de ginaar yi moom feebar yi amuñu ci problème amuñu ci problème mu feebaru ginaar wax dëgg yàlla ñu ngi koy jaay ñu ngi jar wax dëgg yàlla itam bari jaay bari na waaye noo ngi jaay de vraiment noo ngi nekk kenn koo xam ne moom dafay jaayaat lii di ay cuuc moom gis na ne commande lëndi sax tàmbali ne koo am moom mu gis ne xibaar gi nu mel suñ ko dëggalee jombul mun naa lompoñal li nga xam ne nag moom mooy seen activité. non dana yokk lu bari quoi loolu moom dina arrangé moom parce que bu ko gaa da nga jaay di jaay ay to bu poussé amul aliment du mën dem quoi mais aliment du mën a dem dina yàq lu bëree bëri. ah na gën a góorgóorlu rek amoon na fi de mais gars yi seere woon nañu ko seere woon nañu ko loolu moom bu amee moom dina yàqal ñu bëree bëri bëri moom surtout nag ñi nga xam ne ci la ñu yëngu quoi dina yàqal lu bëree bëri bëri parce que ñu bëri bu ñu bëggee investir du du nangoo du nangooti du nangooti jël seen alal ndax de xam nga Sénégal boo nee feebar am na boo yoroo sa bëgg a dugal ginaara kay dañ la découragé loo quoi. benn ci ay pàcc yiy jaay ginaar foofee ca Castor. jaaykat yi gis na lii di grippe aviaire sax am nañ ci solution. ganaar moom ak lu ci mën di nekk ak lu ci man di nekk bi boo ko toggee dem na ganaar moom loolu yàlla yàlla defal ci loolu moom waaye grippe aviaire nag moom maa ngi koy soog a dégg ci yow sax waaye amu boo ko toggee bu ñoree lekkal. ñi jaay aliment bi am nañ garab yi yëpp vaccin yëpp am na. vaccin yëpp am na pour boo joxee grade même bu feebaree boo ko joxee sax mu wér yooyu ñu jaay aliment am nañ ko am nañ ko moom yooyu am na moom grippe aviaire ñu koy tudd ci région bu Thiès rawatine foofu ñuy wax ci Pout ci benn poulailler boo xamantene lu toll ci quarante huit mille ñoom dañoo infecté woon ba mujj dee ñu toll ci vingt mille ñu mujj leen rey loolu rek di wone gravité bi nga xam ne grippe aviaire tàmbali ne ko fii nii ci réew mi lu ni mel sax moom moo daal di sabab ba technicien ci suba ba léegi ñoom ñu ngi xëy di tëju di réunion ngir daal wut ab solution ci lii di épisode bi nga xam ne moom mooy grippe aviaire.